jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, dellu am mbégte dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Bruno D'erneville Euh, mi nga xam ne moo jiite parti bii nga xam ne moo tudd parti pour l'action citoyenne ba pare mu nekk membre ci coalition bunt bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne aju na ci actualité waaye rawatina élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal euh, Bruno Derneville maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu itam euh, vraiment sa auditeurs yëpp auditeurs wu mi FM di leen wax ne namoon na leen ndax géjoon naa ñëw ci plateau Rewmi FM di ñaanal ñëpp jàmm et puis di ñaanal jàmm surtout suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne mooy tabaski bi. Bruno Derneville yow yaa nekk leaderu parti bi pour l'action. Euh, citoyenne euh, parti boobu ngeen bokk ci coalition bunt bi avant coalition bunt bi amoon nga benn taxawaay jëm ci wàllum nekkin ak dundinu Sénégalais yi maanaam dund gu cher gi. Euh, ndax mën nga see dellu si. ci ci wàll woowu. waaw dëgg la effectivement dund gu cher gi temps yi dafa nekk loo xam ne waa gouvernement bi dañ koy mbubboo ngir wax ne affaire guerru Ukraine bi ak yu mel noonu moo tax ba yëf yi toll fi mu toll nii may wax nag ne bu ngeen bàyyee xel ci li nga xam ne mooy suñu taxawaay ñun suñu parti parti pour l'action citoyenne depuis 2011. Mhm. dañu fi indi benn programme boo xam ne ñu ngi ko wooyee programme 3R. Mhm. trois r mooy refondation restructuration remobilisation. ci biir programme boobu ñett ñaareeli ponk bi muy restructuration bi dañ ci wax lenn loo xam ne dafa am solo. xaj na sénégalais yi bàyyiwuñ ci bàyyiwuñ ci woon xel bu baax bu leen fàtte ne depuis 2011 la boobu Covid bi egseegul dañu ne Sénégal war na toll tey foo xam ne suñu mbéy mi waratul doon mbéyu taw. mbéyu ñetti weer dañ ko war a def mbéy moo xam ne at bi yëpp la béykat bi di béy waaye du doon rek benn catégorie wu béykat parce que gis ngeen ne président lay Wade moom Euh, dafa indi woon ay affaire gowaana yu demee noonu mais ñi mu touché woon quelques béykat rek la woon bi muy indi sax machines yi nga xam ne ñu machines yaa ngi jógee euh, fale Inde gis nañu ne machine Inde yooyu jotu jotu koo jox euh, béykat yi mu ko buggoon a jox yépp ndax am na ñoo xam ne ci àll bi la ñu nekk te fi ñu nekk noonu. Mhm. indi leen ay machines yooyu yenuwul maana mhm. gis nañu itam président Macky Sall bi mu ñëwee. indi na euh, yeneen i mbir moom itamit complété ko ay ko ay ay product yu demee noonu. Bruno yow da nga jàpp ne pour dundin gi ñoŋ njëg yi euh, bañu yokk yow da nga mel ni da nga privilégié li nga xam ne mooy agriculture. voilà ma maa ngi ciy ñëw ci foofu laa bëgg a egsi nii donc euh, pour wax leen ne ñu ngi doon wax ne donc production agricole bi il faut béykat yi yëpp mun cee béy. te mu doon béy mbéy moo xam ne mbéy mu intensif la moo mu ñuy def ak machine te duñ ci xaar taw loolu bu ñu ko defee dinañu am euh, meññeef yu doy sëkk yoo xam ne dinañ ci mun a dund te xam ngeen ne euh, lépp loo xam ne dañ ci am ci lu doy njëg yi du mënul yokku mm-hmm. euh, donc ñun loolu la ñuy wax ci suñu agriculture waaye agriculture boobu dañ ci boole li ñuy wooyee le regroupement stratégique des villages maanaam fekk dëkk dëkkaan yi ñu ngi tasaaroo noonu loolu duñ ko mun a def. ah loolu nag ñun sawar nañu pour gën a yaatal waxtaan boobu gën a yaatal xalaat boobu ndax ñun depuis 2011 ñu ngi wër euh, Sénégal di ko wax waa àll bi ñu ci bëri mun naa wax sax ne daanaka ñëpp nangu nañu ne. Euh, doxalin boobu ñoom dinañ ci mun a ànd. kon naga ngaa jàpp yow tant que ñoo ngi jëggaani li ñuy dundee mbir mi mënut a ñàkk cher. loolu moom lu wóor la maanaam fekk ñu ngi jéggaane li ñuy lekk ci bitim réew il faut que muy cher te ñun dafa mel ni ki suñu kilifa yi dañoo am tayalu xel tayal boo xam ni bugguñu sonal seen bopp ci li nga xam ne dinañu defaral suñu bopp li nga xam ne moom la ñu soxla maanaam di béy di dundee euh, loolu nag. bay dundee dafay laaj xalaat bu wër dafay laaj itam xarañtef ci li ñuy def loolu nag moo ñàkk ci suñu njiit yi ba nga xam ne euh, gis nañ ñu euh, président Macky Sall li mu mujj def ci fan yi bi mu demee euh, russi dafa gis Poutine ne ko dimbali ñu ndax ñu am blé bu doy mais blé bu doy boobu ñun buñ ci góorgóorloo fii mun nañu sax defar blé waaye ñun sax blé boobu mun nañ dem ba mun koo bàyyi dugg ci yeneen i céréales yeneen i maanaam meññeef yoo xam ne dinañ ko fi def mu mun a remplacer sax blé bi blé bi te dinañ ko mun a def ci anam yoo xam ne ñëpp dinañ ci mun a jot ci euh, prix yu yu yu yu wàññeeku. donc loolu daal moo taxoon ba ci fan yale passé ma defoon benn sortie ci euh, su sama page Facebook bi di wax ne wax dëgg euh, cherté de la vie bi maanaam le fait que njëg yi yëpp di yokku kooku mun nañu wax ne responsabilité état mu ngi ci biir te responsabilité boobu. Euh, askan bi war na ko ràññee ba xam ne bu ñu ko bëggee wàññi assemblée nationale la ñuy mën a soppi mbir yi maanaam assemblée nationale ci la ñuy voté ay loi pour wax ne mbir yi léegi nii lañ ko bëgg a doxale muy ci wàllu gestion des des des des des ressources nationales muy ci wàllu ter territoire national domaine national bi nu ñu koy organiser muy ci wàllu déplacement des villages muy ci wàllu itam coopérative rurale yi pour mun a financer béykat yi ba si géej gi aussi ni ñuy joxee licence de pêche yi wala ni fi bateau étranger di duggee loolu tamit war nañ si waxtaan loolu loolu tamit c'est éminemment euh, euh, ci assemblée nationale lañ koy doxale maanaam assemblée nationale tey euh, buñ ko buñ ko gëstoo bu baax dinañ gis ne assemblée nationale moo yor dundinu Sénégal yépp ndax loo lépp looy def ci réew mi boo booy xas ba génn sa sa sa sa kër waxuma sax même ci sa biir kër sax am na ci loo xam ne li ko tënk mooy loi bi mais booy génn sa biir kër lépp li ngay jëflante ci biti yoon moo ko tënk yoon boobu ñuy wax nag assemblée nationale lañ koy voté kon gis ngeen ne assemblée nationale dafa am solo lool ñu yóbbu fa borom xam-xam yi nga xam ne ah, bu ñu toogee assemblée bu ñu xalaatee bu ñu indee seen seen seen pas-pas bu ñu indee seen xalaat dinañu indi ay loi yu baax yoo xam ne dinañ ci mën a tënku pour mu aar li nga xam ne moom mooy suñu moomeel euh, may euh, daaneel ci wàll woowu pour wax leen ne yàggul bi ma demee assemblée nationale. pour seet parce que nit ki dafay dafa war a gëstu itam fi mu war a jëm mu xool fi muy jëm noonu naka la liggéey bi demee bi ma demee assemblée am na lu ma fa jëlee loo xam ne lu yéeme la ndax xam ñépp xam nañu ne téeméeri euh, député ak juróom benn fukk ak juróom la am ci Sénégal waaye ci lim boobu eggul juróom député yi nga xam ne dañuy dem Euh, di euh, di di di di di di visiter li nga xam ne mooy bibliothèque bi li bibliothèque nag mooy fi nga xam ne foofu la ñuy garder foofu la ñuy denc loi yi yépp te foofu ku fa dem itam di nga mun a am peut-être yenn gëstu yoo xam ne di nga ko mun a am ci yeneen loi yi nga xam ne yeneen réew yaa ngi koy def waaw may laaj nag ndax mus nañu gis uude boo xam ne. Euh, fi mu toog rek lay toog du dem mukk fii fi ñuy jaayee der yi ndax dinañu mus nañu gis kuy defar ay kuy defar ay ay menuisier boo xam ne fi ñuy jaayee bant yi kooku intéressé wu ko moom day fi mu toog rek lay toog di di di di di di bant yu ñu ko jox rek mu mu mu mu mu liggéey ko loolu li muy wone mooy fekk ñu ngi am genre député yu mel noonu réew mi du dem kanam parce que ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale dafa mel ni li ñu fa nekkee nekkul pour réew mi jëm kanam nekkul pour aar askan bi nekkul pour jëmale kanam askan bi li leen fa toogloo ñu ci bëri li leen fa toogloo mooy tàccu ak jël li ñuy jël dugal ko seen poste dem seen yoon. parce que bu doon liggéey la moo leen fa yóbboon kon foog naa ne juróom yooyu waroon nañ ko. li mu juróom yooyu waroon nañ ko weesu bu yàgg. d'accord dinañ ñëw ci euh, assemblée national ak euh, treizième législature bi nga xamante ni euh, jeex na waaye fan yi tamit président Macky Sall jël na ay quatre-vingt mille yónnee ko ñenn ci ñi nga xam ne moom njort na ne ñooñu seen loxo jotul seen seen ginnaaw ndax loolu solution la. waaw loolu euh, man depuis bi ñuy tàmbali def seen bourse familiale yi damay faral di wax sénégalais yi nañu yeewu nañu xippi suñuy gët ndax euh, bañu ñu jàppale néew gi doole yi d'ailleurs sax loolu dafa nekk loo xam ne farata la waaye dañu jàpp ne jàppale néew gi doole yi nekkul jox leen lekk boo xam ne dañ koy lekk ci diiru une semaine mu jeex mm-hmm. loolu xeetu naxaate la. li ñu war a def moo di lépp li nga xam ne mooy jàppandal bi dañu koy xalaat pour que ñoom ñi nga xam ne ñoo néew ñoo ñoo néew doole ñu am ci ñoom ñoo xam ne dinañ leen mun a euh, euh, euh, sip ki nu ñu leen di wooye seppi ci ñoom mm-hmm. waaye ci ñoom lañu ñu ci ñoom lañu dëkk former leen jox leen ay ju jumtuwaay yoo xam ne dinañ mun a liggéey liggéey boo xam ne luy luy wéy lay doon te bu boobaa xaalis boobu nga xam ne dañ koy wéy di joxe di joxe di joxe noonu rek xëj na dinañ ko joxe benn yoon wala ñaari yoon waaye après ñooñu ñooy doxal seen bopp réew mi mun a euh, orienté wu ci leneen loolu mooy tax réew mun a jëm kanam waaye du rek jàngal nit ñi ñuy tàllal loxo di ñaan. d'accord léegi Bruno D'erneville benn euh, laaj si foofu te ñu génn fa ñëw ci wàllum euh, élection législative yi tey par exemple tey da ngay gis réew yoo xam ne dañu naan moo nekk première producteur ci ci ci ci nàngam waaye tey par exemple tey Sénégal comme ñun xam nañ ne li ñuy jëfandikoo ceeb dafa bëri xam nañ ne li ñuy jëfandikoo mboq dafa bëri ndax ñi nga xamante ni tey ñooy euh, ñooy éleveurs yi na trop waxtaanee bitim réew Sénégal tamit li ñu fiy jëfandikoo euh, ton bëri na li ñu fiy jëfandikoo euh, soble bëri na ak pomme de terre par exemple tey yii nii euh, li ñu fiy jëfandikoo ndawal tamit bëri na ndax bu ñu góorgóorlu woon ba lii ma la tuddal ñu moom ci suñu bopp tey ba man sax di ko yóbbu ci yeneen réew yi est-ce que loolu nekkul loo xamante ne voie de développement bu baax la. loolu ci lu wóor voie de développement bu baax la dañu ne mbooloo mooy doole nag. Euh, dañu seetlu ne tey ci agriculture bi d'ailleurs ñu ngi koy gis euh, ci li xew ci jamono yi dinaa ci dellu siwaat euh, dañu gis ne béykat yi ku ci ne boppam la demal buy ut jiw moom ci boppam mooy demal boppam ci commission bi ne mu ngi ut jiw yenn saa yi ñu dàq ko yenn saa yi ñu ne ko amoo xaalis donc dellul et mmh. donc loolu béykat bi bu àndoon ak coopérative coopérative bi mooy wax mooy wax ci turam. te bu boobaa coopérative bi dina am doole bi nga xam ne kenn du ko mun a ndax kenn du ko mën a euh, dàq ci li nga xam ne mooy moomeelam. nappkat yi tamit noonu te dafa yàlla dafa def muy béykat muy nappkat. ñooñu mënuñu grève ñooñu mënuñu nekk ci ci ci tali bi naan ñu ngi dóor ay casserole wala ñu ngi xeexoo wala yu demee noonu taluñu loolu ndax ñoom bés bu ne ñu ngi ñaan yàlla mu yàlla suturaal leen am lu mu leen jox tuuti lu ñu yóbbul seen askan xam nga loolu metti na euh, kon euh, euh, réew mi muy gouvernement bi moo war a def ay loi yu baax pour aar li nga xam ne mooy. suñu moomel boobu mais lan lañ moom suñu bopp ñoom tey Bruno. waaw li ñu moomal suñu bopp. kañ maanaam loo xam ne tey am nañ si comme par exemple tey am nañ si benn li ñuy wax indépendance alimentaire wala ind maanaam lu mel noonu tey maanaam ñun boo xoolee li ñu fajoo sax dañ koy jéggaane maanaam lenn loo xam ne yow jàpp nga lii ñun kat fii ci réew lañ koy bayee wala fii ci réew lañ koy defaree maanaam doy na bi sëkk jéggaane wuñ ko lan la. waaw loolu de sëñ bi sekk ma de euh, bu ma xoolee bu baax dinaa gis ne daanaka amul lenn loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ndax euh, suñu njiit yi. dafa mel ni ñoom dañu jébbalu ñoom ci seen bopp sax ñi nga xam ne ñooy euh, waa bitim réew yi muy tu tubaab yi rawatina ñi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon euh, loolu de ay complexe lañ ko lañ ko jàppee moo tax sax ci suñu programme boo xoolee 3R yooyu ma la doon wax bi ci jiitu mooy refondation refondation li muy wax mooy balaa ñuy tàmbali def lenn. Mm-hmm. ci jëflanteeg ak ñeneen yi li ñu njëkk war a def mooy dellu siwaat ba xam ñun ñooy kan ba xam lan mooy suñu cosaan lan mooy suñu aada te bu may wax cosaan ak aada waxuma lislaam waxuma kerceen attention ñu bëri dañuy juum di xalaat ne lislaam wala chrétien mooy suñu valeur lislaam ak chrétien mooy diine ñu ci bëri ci ñun ci biir ci biir Sénégal waaye li nga xam ne moom mooy suñu aada ak suñu cosaan kooku dafa wute te loolu il faut ñu fulal ko bu baax ñu xamaat ñu ñu ñan ñan lañu di di ko jàngale nag ci suñu ci suñu école yi gis ngeen Cheikh Anta Diop am na liggéey bu bu bu mucc ay bu mu fi def di wane naka la séeréer yeeg euh, wolof yéeg euh, euh, alpulaar yi naka lañu ñu ci culture wu Euh, Égypte culture misira ñëw ba fii moo tax sax boo xoolee ci baatu séeréer ak baatu sax euh, euh, alpulaar bari na ci yoo xam ne dañ ci dañ ci dañu dañu bokk mm-hmm. kon loolu dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko war a gën a gën a sàmm li nga xam ne mooy itam euh, euh, li ñuy wax la cousinage à plaisanterie nga xam ne Senghor wax na ci lu bari tamit diggante euh, waaso yi ci biir Sénégal muy joolaa yeeg séeréer yi muy joolaa yeeg en tout cas daal. Diop Ndiaye Diop Ndiaye yeeg yooyu yëpp. loolu dafa nekk lu am solo loo xam ne dañ ko war a sàmm war koo war koo war koo jëmmal li may wax nii nag dafay am njeexital. ci suñu taxawaay bi ñuy am ak ñii nekk ci bitim réew nga xam ne dañuy jëflante jëflanteeg ñun parce que nit ki bu xamee ku mu doon rek du nangu yenn yi du nangu ñu noot ko ci yenn nooteel yi te di te itam lépp lu muy tënk ak ki nekk ci bitim réew dafay doon loo xam ne daf ciy war a gis boppam waaye nekkul loo xam ne day ñëw rek jaay boppam nii rek bàyyeeku. économiquement dañ ñoo noot. ah mais économiquement dañ ñoo noot ndax boo xoolee tey économie bi. Euh, société yi gën a nekk stratégique fii ci Sénégal société yu bitim réew la waaw boo muy boo jëlee transport transport tey mun nañu wax ne muy euh, infrastructure de transport la bëgg muy autoroute yéeg muy euh, euh, téléphone yeeg muy yooyu yëpp. teer yeeg. teer yeeg yooyu yëpp boo xoolee tubaab yee ko yor boo jàppee Sonatel muy affaire téléphone gis ngeen ne maanaam tubaab yee ko yor te loolu ay données yu am importance la. est-ce que xam ngeen ne Sonatel li muy am ci données dem na ba xam sax nit ñi ni ñuy dundee ci seen biir ndax suñu téléphones yi tey ay ordinateur lañu lépp lu ñu def ñu ngi koy enregistré kon kooku bu dee ki ki ko ki ki ko yor ñun du euh, euh, euh, maîtriser wuñ ko kooku lu ko neex def ak ñun boo xoolee itam li nga xam ne mooy données bio biométriques yi ñuy wax yi ñu yi def ci suñu carte nit ñi wax nañ ko waxati ko dañu jël affaire boobu jox ko benn société boo xam ne foog naa am société Asie la waaw kooku jël données yooyu yëpp dem ak moom lan la ci euh, euh, jëflandi lan lan lay lan lay jëriñoo données yooyu amaana dina toll foo xam ne dina mun a jëriñoo données yooyu xeex xeexee ñu ko. kon ñun loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ñun il faut ñu sooraale ko bu ñuy jëflanteeg nit. maanaam données yu mel noonu war a ñun nangu muy génn. dafa war war a doon loo xam ne dañu koy garder ton gis nga loolu yëpp dafa nekk loo xam ne benn bloc la te bloc boobu li koy faj leen rek la mooy am ay ay nit ñoo xam ne assemblée nationale dañu am taxawaay bi war. d'accord du ñu nekk rek di topp di topp li nga xam ne moom la président wax am na. lenn lu ñu ma wax itam assemblée nationale ñu ne ma proposition de loi sax dafa amatul dafa yàgg bi mu amatul proposition de loi mooy li nga xam ne waa opposition yi député yi opposition yi ñoo koy proposé maanaam waa député opposition dem nañu ba découragé ba ñoom sax amatuñu. pour xalaat loo xam ne dañ koy teg ci table bi pour ne nañu de wote ci wàll wi wala ci wàll wi. alors que ñooñu ñëpp dañu ñëw ak seen xel. pour pour proposer ko. léegi dañu ñëw si loolu jërëjëf euh, euh, Bruno D'erneville euh, yow yaay leaderu parti pour l'action citoyenne nga nekk membre ci coalition bunt bi yéen waa coalition bunt bi proposition lan ngeen proposé askan bi euh, pour su ngeen demee assemblée nationale ndax nag euh, sénégalais yi ñu baree bare bari dañoo dem ba sonn tay ci ñi nga xam ne ñooy député yi ndax dañuy wax ne tey li ñu leen jox ci ay privilèges ñenn ñi euh, bëri na. te ñu bari tamit gis nañ ne yenn député yi dañ fay nekk di saaga ak xaste ñenn ñi bu ñu fa sax teg seen tànk ñi nga xam ne tamit tey ñoo am majorité mécanique comme ni ñu koy waxee ñoom tim ñoo fay buum di buum yi yow yéen lan mooy seen proposition tey yéen waa coalition bunt bi. waaw jërëjëf euh, ñun nag dañu seetlu ne tey euh, bari na ay urgence maanaam li nga xam ne dañ ko war a teel a faj gis ngeen problème mu hôpital yi ak euh, li fay xew. dem nañu léegi sax ba nga xam ne liir yi gën a ndaw yi léegi ñu ngi ñuy faatu foofu ci faatu yu ñaaw a ñaaw a ñaaw te boo xoolee ni ñu ko wa ni ni ko ni ko gars yi tàmbalee faj sax loolu du faj du du pajin ndax dañu ne euh, dañu jàpp ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ci seen càgganteef boobu euh, tëj leen waaye gis nga ne dañ leen mujjee bàyyi li tax ñu bàyyi leen man loolu yëpp wax na waxoon naa ko nee naa leen du problème bi du ñuy ñi nga xam ne ñoo doon liggéey foofu problème bi mooy naka la ñu le système de santé te système de santé li koy faj déglu leen ma bu baax li koy faj mooy un bon code de la santé waaye est que xam ngeen code de la santé boobu depuis kañ la la fa ne depuis deux mille depuis 1967. code de la santé code de la santé. réforme nañ ko 94 nañ ko waaye réforme yu ndaw a ndaw a ndaw ay affaire pharmacie la ñuy wax ay affaire yu demee noonu mais code de la santé weesu na loolu code de la santé dem na ba naka la ñuy organiser woo ci biir hôpital yi naka la ñuy tabbee ki nga xam ne moo jiite hôpital bi naka la ñuy tabbee euh, euh, ñi nga xam ne ñu ngi liggéey foofu ak képp ku def erreur naka lañ lay sanctionné ak ki nga xam ne dafa ñëw pour faju ban droit la am ak naka lañ ko koy waxee ne moom droit bii la am te bu ci amul bu bu jotul droit boobu fan lay dem jooy jooytu ko kon gis ngeen ne code la santé dafa yaatu lool. te suñu code de la santé dañ dafa dafa dafa maanaam dañ ko dafa dépassé. dafa périmé depuis longtemps. périmé boobu nag du lenn lu dul li ma leen doon wax député yi dem bibliothèque sax tayal nañ ko waaw kon nag ñun gis nañu ne. député yi bu ñu toogee li ñu war a njëkk a def mooy lim li nga xam ne mooy priorité yi ci domaine yi yëpp nag lu ci gën a bari te bu domaine yi dañoo bari de est-ce que xam ngeen ne at bu jot li ñuy voté ci loi ëppul fanweer. ëppul fanweer te boo demee dëkk yu mel ni France réew mi dem mel ni France. mais 2006 rek laa vérifié. mais 2006 li ñuy voté ci loi euh, tollu na ci euh, euh, juróom fukk juróom ñett fukk ak ak ñett ci loi te xam nga ne tey kuy wax loi kañ bu dee ñi ñi war a gaawantu ci defar ay loi warul doon euh, tubaab yi waaye ñun la woon parce que ñun ñi ñun ñii ñoo tardé. kon nag ñun non seulement dañu tardé mais dañu tayal ci defar ay loi lan mooy responsabilité assemblée nationale ci wàllum transparence ah, mais responsabilité assemblée nationale lii li lenn lenn ci seen responsabilité mooy ki leen li li ñu faloo lu ci bëri moo baaxul ndax président mooy. nommé ci ci parti au pouvoir am wala ci coalition au pouvoir am ñi nga xam ne ñoo war a dugg assemblée ñooñu bu ñu duggee assemblée nekkuñu forcément ñoo xam ne boroom xam-xam la ñuy doon dañu ñëw rek pour ne ñoom euh, député wu président la ñuy doon. député wu président nag ñëwul foofu pour liggéey dafa ñëw pour tàccu président président amul temps pour def ay loi il faut nit ñi xam ko président amul temps def ay loi. waaw du loolu sax nekkul coobaram. waaw mais transparence bi may wax mooy par exemple tey euh, ministère de de l'agriculture tey. war naa mën a ñëw assemblée nationale ngeen laaj ko tey euh, engrais bi nan lañ ko joxe ñan lañ ko jox gerte gi ñan semence ñan lañ ko jox nangam ak nangam. voilà alors loolu li ngay wax noonu moom euh, mun nañ ko def ci euh, plusieurs anam ci anam yu yu yu benn anam bi mooy bu ñuy voté budget. bu ñuy voté budget yéen xam ngeen ne ministre bu nekk dafay ñëw assemblée nationale wax li nga xam ne moom la tënk ci budget hmm. ak li li muy li muy war a def hmm. ci boobu nag la député yi war koo càmbar yow xaalis bii nga wax nii fii foo koy dugal il faut pas oublier député bu ci ne dañ lay dox dossier bu mat sëkk ci ci ci domaine yi népp yépp kon yow am nga temps càmbar ko rawatina bi nga xam ne assemblée nationale dañu léegi dañuy fay ñu ñuy wooye ay assistant parlementaire assistant parlementaire nga xam ne député bi ci boppa moo waroon fayal boppam man pare pare naa pare woon naa ne wax maa ngi doon wax sax ne man pare naa pour fay kenn koo xam ne dafay daf may toggal nekk sama secrétaire di ma di ma xoolal yi ma xam ne loolu laa soxla mais ñoom sax état bi dem na ba utal leen assistant parlementaire ñoom amatuñu pour fay ku demee noonu. ñoom bu ñu demee ci assistant bi ne man lii laa lii ak lii la laa soxla assistant bi dina leen ko càmbaral ñoom nag jox nañ leen dossier ba mu mët sëpp pour budget bi kon ñoom lan moo leen tere dem gis ñu mel noonu ne leen xool analyser leen ma nga xool ma xoolal ma lii ak lii est-ce que lii am na ci walla est-ce que lale amul ci bu ko defee ñoom bu ñu ko tontoo kooku bu ñëwee assemblée nationale war na mun a poser ay questions yoo xam ne xel mun na koo nangu walla question yu am intérêt kooku question yooyu dañu seetlu ne. waa opposition ñu ci bëri ñooy poser question ñu ci bëri ci parti au pouvoir bu ñu ñëwee tàccu rek la ñuy def ne waaw baax na baax na baax na baax na loolu nag c'est pas bien il faut nit ñi di cambar di poser question ci assemblée nationale ñaareelu mbir bi mooy li ñuy woowee les questions orales et écrite question écrite et question orale mooy question yi nga xam ne euh, député bi mun na toll ci temps bu ko neex mu xool benn mbir rek ne ah ci ci problème bii daal. bugg naa ci am lu leer ci gouvernement bi ma bind gouvernement bi bind ministre bi ne ko man de gis naa lii ak lii loo xam ne euh, daal jaaxal na ma bugg naa ci am lu leer loolu mooy ñëwee les question écrites te question écrites yi tamit jàpp nañu ne rôle député la député yi daf dañu war a jouer rôle boobu fekk ñu jouer wuñ ko mais gouvernement lu ko neex lay def. d'accord mais tey assemblée nationale ban saytu la am ci li ni exécutif bi. yore réew mi ndax léeg la dañuy gis ne président wala ñuy jaay loo xam ne moomeelu askan wi la te du ñu ko jaarale assemblée nationale ba nit ñi yëg ko wala tey euh, euh, président bi di jënd ab avion wala nangam ak nangam maanaam ban saytu la assemblée nationale war a def ci doxinu euh, nguur gi. waaw ci yi nga wax nii nag am na ci yenn yenn maanaam action yenn mbir yoo xam ni ci coobare président de la république la lu demee ni ki jëndum avion. Euh, moom bu jëndee avion euh, war na ci mun a informer assemblée nationale waaye li foog naa li ko loi bi wax mooy boo jëndee ba pare war nga justifier maanaam war nga ñëw assemblée nationale wax li tax nga jënd ko ak euh, lu tax nga def ci koppar bu day nii waaye xam nañu ne président de la république assemblée nationale major majorité moo fa nekk maanaam tey lépp lu mu wax itam dañ koy tàccu rek ne ko waaw wax nga dëgg gongo demal demal noonu kon loolu li muy wane mooy baax na de temps en temps. Euh, suñu réew euh, décidé ne assemblée nationale léegi duñ ko jox président dañ koy jox opposition loolu xewoon na fi France ba mu am lu lu lu lu bari lu mu lu mu jur ci avancement parce que loolu day obligé président bi mu xam ne yow doo buur doo bumi. d'accord léegi Bruno euh, Derneville dañu gis ne assemblée nationale bi maanaam nii la meloon ci Abdou Diouf. nii la meloon ci Ablaye Wade nii la mel ci Macky Sall ndax ñun léegi mënuñoo soppi aw doxalin aw doxalin ni ñuy déclarer ni ñuy defee déclaration politique général wala tey euh, assemblée ni fa ministère yi jaaree ñu soppi ko wala temps bi ni ñu koy joxe maanaam mu am ay réforme sax ci li nga xam ne mooy biir assemblée nationale. très bien question boobu am na solo lool euh, te loolu itam assemblée nationale lañ koy fajee waaye naka lañ koy fajee mooy problème bi euh, ndax loolu bu ko bëggee faj d'abord il ñu saytu. relation yi nga xam ne moom la assemblée nationale am ak executif bi mooy maanaam ak gouvernement bi relation yooyu y compris sax ak règlement intérieur u assemblée nationale bi parce que règlement intérieur assemblée nationale bi kooku tam benn loi donc loolu yëpp dañ koy vote kon loolu majorité bi mooy moo koy yóbbu xam ngeen ne décision bu ñu jël assemblée nationale majorité moo koy yóbbu mmh. kon fekk amuñu majorité du ñu mun a changer yu demee noonu. mais dañu leen wax yéen tey par exemple tey yow yaa ngi ci opposition bi. mais ñenn ñi dañuy wax ne waa pouvoir bi. dañuy wax ne yéen. bu ñu leen joxoon tey bu cohabitation amoon tey. Euh, maanaam yéen au réew mi da koy bloqué au lieu que maanaam ngeen. noon non non mais mais ñoom ñoom pouvoir lu la ñuy wax. waaw mais loolu loolu la ñuy wax parce que ko dañu ragal li tax ñu ragal mooy ñoom xam nañu ne loolu bu amee rek ñoom lu ci bëri ci li ñuy nas xëj na duñ ko duñ ko mën a defati. Euh, bloqué moom kenn xalaatu ko ñun foog naa ne ñëpp xam nañu ne ay kilifa lañu ay responsable lañu euh, ñu ci bëri ci opposition wax dëgg xamuñu leen ci wax bu dëgër xamuñu leen ci wax bu ñaaw xamuñu leen ci jëf ju bon kon nag foog naa ne ñun li ñu euh, li ñu intéressé mooy ñu fexe ba réew mi avancé gis ngeen ne bari na ci ñoo xam ne dañuy nekk ci opposition bu ñu demee ba ci nguur gi yor nguur gi yor seen doole nguur gi nag bu boobaa li ñu daan wax ci opposition bi indi beneen wax par exemple ci wàllu code électoral waxoon nañu ne bulletin unique la ñuy def même waaw président Macky Sall ak ñi mu àndal loolu dañ loolu lañ doon wax léegi nag waxatuñu dara ci loolu parce que intéressé wu leen parce que loolu xam nañu ne fekk dañ koy def rek xëj na dina wàññi seen doole mais loolu moo baax ci réew mi donc loolu il donc population yi tey am nañu chance voter opposition bi bu baax pour que opposition bi ñu mun a après lëkkaloo manko voté ay loi yoo xam ne day soppi mbiri li tax ba situation bi nekk situation bi gën a baax ci Sénégal mooy ni ma leen ko waxee képp ku nekk ci opposition seetlu nañ ko boo ñëwee pouvoir comme yow yaa ëpp doole dangay def lu la neex après kon léegi comme xam nañu ne pouvoir bi waa Bennoo ñoo ko yor. Mhm. mais léegi nañu jox nañu jox opposition bi ñu jël assemblée nationale léegi bu bu ko defee. ba du ngeen def lu leen mais loolu duñ ko mën xam nga lu tax parce que am na loo xam ne ci suñu prérogative la assemblée nationale waaye am na loo xam ne ci prérogative bu président la kon ça veut dire lan ça veut que par force il faut ñu ànd liggéey. Mmh. parce que réew mi mu mënuñu koo bloqué il faut ñu dund il faut nit ñi lekk il faut ñu naan il faut ñuy ñuy ñuy ñuy dem ak dikk. am nga si yaakaar. ah man de xalaat naa ne sénégalais bu ñu bu ñu bu ñu fas fasee jom dëgg dëgg dëgg te am naa yaakaar ne euh, dinañu taxaw ci ci ci wàllu. yow sa analyse euh, par rapport ni nga gisee Sénégalais yi est-ce que jàpp nga ne pare nañ pour jox opposition bi majorité assemblée nationale. noo man xalaat naa loolu xalaat naa loolu parce que dañu toll ci jamono yooyu tey tey gis ngeen ne euh, bari na ay réew yoo xam ne. population bi day votel benn président waaye dem ba ci biir après jël assemblée nationale bi votel ñeneen loolu nag baax na ci démocratie parce que day obligé gis nga tey waa gouvernement bi dañ ragal moo tax parce que xamuñu xamuñu ni yëf yi di demee bu opposition jëlee majorité bi à l'Assemblée nationale moo tax ñu naan bu ñu jëlee dañuy bloqué dañuy bloqué mais loolu sax du wax kilifa parce que xam nañu ne. ñun ñii nekk ci opposition bi ay responsable majeur lañu ñun xam nañu lan mooy état ñun xam nañu lan mooy taxawaayu kilifa ndax nag balaa ñuy nekk am politique dañu nekk suñu ay kilifa ci li ñuy dox ñépp xamee ñu ci loolu kon tey intérêt wu population bi mooy votel massivement opposition bi pour que loi yi ñu war a def ñu teel ko commencé def par exemple naka la ñuy tabbee député yi tey baaxul ni ñu tabee député yi baaxul war nañu def tabbin yox boo xam ne député bi mënatul ne man député wu président la loolu nag list nationale bi. loolu liste nationale sax mun na mun na mun na am mun na am mais war na am ay liste yoo xam ne dañ koy def sous forme de. euh, de de vote par euh, comment on appelle ça scrutin uninominal euh, par par par euh, par par euh, circonscription électorale maanaam loo xam ne par ñaari ñetti nit de ñaari ñetti député ñooy falu ensemble ci ay zone yoo xam ne. comme un peu ni ñu koy defee ci yenn réew yu mel ni ay France yu dem noonu maanaam ni ñu leen di fale ñoom xam nañu ne population yaa leen teg gët xam nga ñoo xam ne ñoom dañu dañ leen buruxlu ci liste rek ñu dugg ci liste ñooñu amuñu lu ñuy tontu population waaye bu dee yow population bi moo moo la teg bët ne la yow la ñu fal mais yow mënatoo wax ne euh, président la fal. xam nga tamit euh, Bruno euh, Derneville man dama jàpp ne dafa benn rupture de confiance bu am diggante askanu Sénégal ñu bari si ñoom ak assemblée nationale. waaw loolu mënut a ñàkk parce que wax naa leen ko sànq euh, bari na ay problèmes yoo xam ne tey nit ñaa ngi koy dund te ñu ngi am njort ne xëj na assemblée nationale bu baaxoon du ñu am problème yu demee noonu. Euh, euh, population yi sax mu ñu xam ak quel point li ñu xalaat noonu c'est une vérité maanaam loolu ñu loolu ñu njorti noonu lu lu dëgg la dëgg la dëgg absolu la li tax muy may wax loolu wax naa leen sànq ci affaire hôpital hmm. ne li koy faj. du lenn lu dul defar benn code de la santé bu bees boo xam ne taxaw na tem pour que faj mbir yi ba nga xam ne ñëpp xam ne code de la santé am na ku ci ne xam àqam ak yelleefam ak naka la ñuy tabbee nit ñi nekk foofu. mais loolu loolu rek nekkul nekkul euh, nekkul euh, euh, li nga xam ne mooy coobare assemblée assemblée day laal domaine yi yëpp te domaine yi boo ko tënkee bu baax amul amul amul sikki sàkk boo ko tënkee bu baax doxalin bu baax lay am wax naa leen képp ku génn sa kër. bu bi ngay génn bi ngay génn sa kër rek yow li la tënk mooy loi bi kon loi dafa nekk loo xam ne. ay xalaat borom ay xalaatkat yu baax ñoo koy ñoo koy def. jërëjëf euh, Bruno Derneville yow nga nekk membre ci coalition euh, bunt bi yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi mu am samedi bu jot 15h 16h léegi Bruno Derneville sànq yow yaa ngi wax ne opposition bi njort ngeen mu am majorité assemblée nationale mais dañoo gis ne coalition yi tey ci biir opposition bi ñenn ñi dañoo gis ne ak xaajaloo dafa am ci seen biir am na ci sax coalition ñoo xam ne dañoo njort ne ci biir coalition yi am na si ñoo xam ne président la ñuy liggéeyal lal mooy sa xalaat. waaw xam ngeen euh, démocratie euh, lii mooy démocratie démocratie itam mooy ku ci ne euh, fi nga xalaat ne foofu nga war a dem rek fa ngay dem. li ngay li ngay li ngay nas pour réew mi dañu xalaat nag ne aussi ci démocratie ñu ci ñiy nekk ci wàllu politique bi am nañu yaakaar ne ñu ci bëri li leen soxal mooy doxal réew mi mais démocratie nit ñi ñëpp mënuñu ànd. na peut-être ñoo xam ne jàpp nañu ne day am ay stratégie wu état pour jéem a diver diversifier l'opposition mu am ay opposition yoo xam ne peut-être euh, Euh, dañu favorable ak pouvoir bi ak ñeneen ñoo xam ne favorable lu gis nañ ko Macky Sall def na ko ci ci ci législative 2017 ba tax eh, liste yi bare lool ah, foog naa ne 47 liste moo amoon def na ko ci eh, élection locale yi gis nañu mu def ay liste parallèle euh, élection législative yi am na ñuy wax ne mu ngi ut na ay liste yu mu tabb jéem leen jàppale kooku ñun man duma ci sori parce que <laughs> mais loolu de ah xaj na am nañu ci ñoo xam ne ñu ngi ci suñu biir nekk ay xaritu Macky Sall loolu weddiwuma ko parce que am na ñi ni fa ne ñoo xam ne ancien wu Macky 2012 lañu mais nag foog naa ne Sénégal kenn mënul tere kenn nekk xaritu kenn. Mm-hmm. waaw loolu nag nekkul ne da nga nekk xaritu nit rek mooy yow da ànd ak moom ci li muy def yépp euh, professeur Mbow moom wax na ne euh, mook Macky ñoo màggandoo ñoo jàngandoo sokoon moom professeur Mbow ba léegi mu ngi conseil économique et social mais moom professeur Mbow li mu wax leer na nee na Macky Sall troisième mandat c' fini moom jàppale na ko ci ñaari mandat yi troisième mandat c' fini te fii mu ne nii transition la ñu war a préparer maanaam naka la réew mi di tabbee ci loxo yu baax pour pour réew mi ñu mun a régler problème mu askan bi. mais nee na nee na ko itam yow sa programme économique baaxul. waaw mais ku wax loolu yëpp nag wax dëgg kooku mënuñu wax ne ànd nag moom. man nag. foog naa ne sama position kenn naa tablé wu ko parce que depuis 2011 maa ngi ci opposition xeex naa Abdoulaye Wade xeex naa Macky Sall te ba léegi maa ngi xeex bu may nee Abdoulaye Wade ak Macky Sall dama xeex seen nguur man xeexu ma nit wax naa ko waxati ko mais nag sama baat ci kaw foog naa ñëpp xamee nañ ma liggéey man sama liggéey bopp laa yor di ko liggéey euh, état bi di ma xeex li buggaan dal noonu man dal na ma waaye man xëy na dama nekkul koo xam ne day yuuxu temps. u oh, impôts yi domaines yi dal na sama kaw et yooyu yëpp ba tax ba bi yoon bi may laata song législative yi dégg ngeen ma fu nekk nee naa man de damaa démissionné parce que li ma daloon ci 2017 du mu bëggatuma mu dalati ma maanaam bëgguma fii foofu nga xam ne ay liggéey a fa te loolu mun naa wax ne ñooñu mënuma euh, munuma hypothéquer seen vie maanaam mënuma euh, indi leen ay jafe-jafe ci seen dundin man je préfère assumer li nga xam ne moom laa doon nangu naa ne homme politique la kenn forcé wu ma ma def loolu dama ko def pour sama askan dama ko def pour wéy wu rafet dama am tur Derneville ku xam luy kuy tur luy turu Derneville dina xam ne ñun dañu am tur tur boobu nag kenn du ko salfaañe kon li ma bëgg mooy continuer suñu tur mu am woy wu rafet Bruno Diatta maag moom ñoo bokk turandoo Bruno Derneville la euh, mooy suñu turandoo Bruno Derneville mooy rakko yaayam yaayam mu ngi tuddoon Clotilde Derneville loolu ñu bëri dañ koo dañ ko réeree mbir foog naa Bruno Diatta ñëpp gis nañ li mu def ci réew mi ku général Jean Alfred Diallo kooku sama sama sama sama sama tonton la kooku tam ci Derneville yi la bokk Adan Mbaye Derneville ci Derneville yi la bokk Jacques Derneville ci Derneville yi itam kon nag man itam bëgg naa am woy wu rafet te bu ma kenn wax ne damay jàppale Macky Sall Macky li ma ko wax mooy mandaam day jeex te na fexe daal ba bàyyi réew mi ci anam yu baax ñu continuer ko liggéey. waaw mais tey euh, na D'erneville ñu bari dañoo njort ne Macky Sall du jekk-jekk rek bàyyi réew mi noonu ñu bari njort nañu ne pëccoxoo munta ñàkk pour mu bàyyi réew mi. ah euh, man de wax dëgg euh, damay faral di wax président Macky Sall bu ñu xoolee ni mu doon doxalee bi mu nekkee premier ministre. mënoon nañu xalaat ne peut-être dinañu toll ci yenn jafe-jafe yu demee nii parce que moom rek lañu fi gis mu nekk on homme politique war a dem voté ji yorul carte de carte d'électeur mu forcé voté te warutul waruloon voté man bu ma newoon moom à sa place nekk premier ministre dina ma doon jaral ma yónni sama chauffeur mu jëli sama carte ma ñëw voté rien que pour mun a joxe l'exemple parce que boo nekkee njiit danga war a nekk royukaay loolu defu ko ñu fàtte loolu. votel ko tey bu jëlee ay membre du conseil constitutionnel di leen def loolu demee nii lu loolu loo xam ne wax dëgg euh, kenn sañu ko wax sax ci nit ñi di ko dégg tellement de rusu rusukaay la maanaam fexe tollu ñoom les ñi nga xam ne dañ leen di woy les sages mooy ñi nga xam ne ay mooy suñuy mag ñi ñu dem ba ne list mun nañ ko xaaj ñaar titulaire yi dem suppléants yi des wala suppléant yi dem titulaire yi des kooku kenn mënu koo xalaat kooku xel daf koo mënul nangu jarul sax ngay jàng pour nga xam ne titulaire ak suppléant ñoo ànd li tax ñuy wax titulaire ak li tax ñuy wax suppléant parce que titulaire bu amatul suppléant mooy jën mm-hmm. kon titulaire ak suppléant benn liste bi la mënul doon ñaari list bu doon bu doon. maanaam suppléant munul am sans titulaire. mais lu ci lu wër parce que bu dul woon loolu duñ leen tuddee sax titulaire ak suppléant membre rek la ñuy tuddee membre de la liste mais doo wax titulaire ak suppléant boo nee titulaire ak suppléant rek dafa am buum leen téye ñoom ñaar. yow da jàpp ne ku def loolu bañut a def leneen. mais bañut a def leneen te loolu itam ma wax leen benn mbir mooy loi bi. loi bi moo wax ne président de la république mooy tànn. les sages du conseil constitutionnel foog naa moom juróom la ci tànn yeneen ñaari assemblée nationale waaye xam nga ne ku tànn juróom yow juróom yooyu ñooy ñooy ñooy ñooy dogal léegi nag ki nga xam ne yow président ci boppam moo la tabb moo na ne man maa la jël pour nga dugg fii yow di nga def loo xam ne wute nag li mu li mu bugg loolu mun mun ta am kon loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ ko soppi assemblée nationale ci ci ci loi bokk na donc li nga xam ne war nañ ko soppi ay député ñoo koy soppi indi benn proposition de loi moo tax ma ne population yi nañu gën a gaaw a gëstu xam ne opposition yi la ñu war a dooleel tey pour ñu changer loolu. mais Bruno Derneville tey lii ngay wax ni coalition yeeyu askan wi ñoom euh, dal na leen seen suppléants yi ñooy dem ñoom ñoo ngi xeex est-ce que. solidarité am na ci opposition bi ñëw jàppalee leen ci xeex bi ndax ñoom nee nañu dañoo wéet ci xeex bi. waaw euh, jërëjëf question bi am na solo lool am na sax ci temps yi passé kenn ku ma posé question ne ma may yow lu tax ba demuloo ci manifestation wu euh, vendredi bale passé euh, vend bi bi gars yi defee manifestation bi ba ñu xeexoo foofu ma ne ko ma ne leen man ñëpp xame nañ ma ci. position yoo xam ne man duma ci dellu ginnaaw te foog naa tey depuis 2011 benn tey euh, amul vaar bu ñu ma mun a def boo xam ne tey dama wax lii ëllëg ma def ma wax leneen loolu moom maa ngi def défier ku ko neex mu xool ci vaar yi te pourtant def naa ay émissions yu dul jeex. Mm-hmm. waaye amul fenn fu ñu mun a ne lii la waxoon te gis nga doxale na nale man nag je solidaire de l'opposition maanaam ci opposition laa bokk te képp ku nekk ci opposition war naa la mun a faral war naa la mun a faral ci. anam yi nga xam ne yow da nga am taxawaay bi nga war a am maanaam tey c'est pas parce que daan on est ci opposition bi ko lu ñu neex wax lu ñu neex def li ma li tax may wax loolu mooy bu ma jëlee ci kaawu Yewwi yi seen cas bi dañu éliminer seen liste proportionnelle euh, de des titulaires bay liste proportionnelle bu suppléant yi li tax ñu def loolu dañu ne seen liste incomplète article L178 bi lañu ñu appliqué premier bi wax ne liste incomplète bu ne dañ koy rejeté mais loolu loi la am déet loolu loi la donc loolu amul sax normalement amul sax dañuy du dañuy dañuy dañuy bàyyi liste proportion euh, kii titulaire yi dugal suppléant yi wala euh, ñaari yooyu ñaari liste yëpp nee naa la titulaire ak suppléant ñoo ànd kon man dama ne liste Yewwi bi bu proportionnel bi. lépp la ñu waroon dax liste euh, euh, euh, kii bi bu bu bu Benno Bokk Yaakaar boobu waxuma la sax liste proportionnelle mais moo boobu seen liste yi yëpp lañu war a dax. Benno Benno liste yëpp la ñu war a dax xam nga lu tax parce que bu dul dara am na fu ñu lajj foo xam ne leer na nañ mooy ci parrainage bi ndax parrainage. dañ la wax ne am na foo xam ne waroo ko jéggi ci kaw am na foo xam ne waroo ko jéggi ci suuf ñoom dañ ko jéggi ci kaw ba pare nag ñu waxal ko seen bopp looloo gën a garaaw ñu wax ñoom ci seen bopp ñoo ko waxal boppam ndax Mimi Touré moo ko wax nee na moom dañ ci wisal benn mais yow moo boo boo xamee liy droit luy yoon yoon dafa am fu ñu la tënk boo ko weesoo ñu jàpp ñu ñu ñu ñu ñu daan la lu tax ba kon daanuñu leen foofu kon foofu déjà euh, conseil constitutionnel am na fu mu lajjee. parce que liste nee naa la liste bennoo yépp la ñu waroon dàq muy muy titulaire muy titulaire muy suppléant muy majoritaire muy muy muy muy muy proportionnel lépp la ñu war a dàq ñoom waruñu bo waruñu bokk fenn. léegi nag mais mais lii yow doon na xeex lii ngay wax nii. waaw mais attention maa ngi ci ñëw léegi ma complé ma ter ma rek ci affaire bennoo léegi nag bu dee fexe nañu sax ba laaj ba ba ba ba ba jalgati affaire parrainage bu ñu ñëwee ci affaire parité. ñoom seen liste euh, proportionnelle bi dafa am problème mu parité kon problème mu parité boobu problème mu parité boobu war na tax seen liste proportionnelle bi yépp dem muy titulaire ak suppléant kon bu dul dara ñoom bu ci lu gën a néew seen liste proportionnelle bi yépp a war a dem quitté mm-hmm. mais ñoom ak yeewi yépp léegi nag ma ñëw ci tontu bi question bi nga ma laaj nga ne waaye waaye Yewwi dañu woon opposition ci seen xeex bi mais ñoom xeex boobu dañ ci dañ ci boole lu bëri xam nga xeex boo koy xeex il faut muy leer ci bopp nit ñi lan nga bëgg xeex bu dee da nga boole mu doon espèce suppu kànja li ngay wax lu kenn du ko dégg yow li nga yow kii day dégg lii kale dégg la ki dina am koo xam ne dina dégg li nga wax mooy yow da nga ne oh, Benno Bokk Yaakaar ñoom seen liste yi warul dem. am na ñoo xam ne dinañ dégg loolu. na ñoo xam ne dinañ jàpp ne li tax nga teew foofu mooy itam waa Yewwi am nañu droit ñoom participer te loolu c'est pas normal li tax ma ne c'est pas normal c'est pas parce que ki nga xam ne moom nga jàkkaar lool dafa jalgati nga ne kon man tam war naa jalgati loolu ce n'est pas responsable. d'accord léegi yéen yéen tey par exemple tey bu ngeen jàppee ne Yewwi warut a dem euh, seen liste euh, nationale bi. waaw euh, ngeen jàpp ne Benno warut dem ci Sénégal gi yépp yéen coalition yooyu. bu paasee euh, Benno ak Yewwi. yeneen six coalition yi. lan moo tax bool dajuloowu leen ci seen biir xeex ne bu Yewwi dem seen liste nationale bi ak bu bennoo dem ci Sénégal gi yëpp. waaw euh, loolu de ñun waxtaanee nañ ko ak suñu mandataire national ba mandataire bi am na jéego yu mu ci def wax dëgg am na jéego yu mu ci def euh, ngeen baal ma bëgguma tudd ay tur waaye fexe nañu ba boole ñeent. ñeent ci. Euh, coalition yi pour ñu ànd ak ñun ci yenn taxawaay waaye am na ci benn boo xam ne dafa ne bëggul euh, bëggul ñu boole ko ci. mooy Aar Sénégal. ah du ma tudd tur nag maa tudd Aar Sénégal gis naa seen communiqué bi mais gis ma si ah coalition Aar. ah mu ngoog kon nag euh, yaa ko waxal sa bopp ñun daal dox nañ dox boobu. kenn mënuñu euh, sa euh, euh, maanaam duut baram ne ñu yéen jéemu leen loolu loolu nag li taxoon ñu def ko nekkul pour ñu jël ñeneen yi ñëpp boole leen def leen def leen suñu ginnaaw xëy na aar dafa foogoon ne dañ leen di boole def suñu ginnaaw du woon loolu ñun doxin doxalin bi ñu bëggoon am mooy sénégalais yi xam ne ñun nekkuñu fii pour xulo nekkuñu fii pour ne kii moo war a am ki kii kale warul am nañ leen dàq et cetera nekkuñu fi pour ut loo xam ne dañuy bëgg a dóor sànni xeer ci ñele ñun ñëpp nañu tënku ci yoon yoon xañ na conseil constitutionnel waxul yoon ni mu war a demee sax loolu moom ci lu wóor la mais ñun dañu ne donte sax ñun on part pas des hommes de droit maanaam euh, loi bi du ñun ñoo koy defar mais boroom xam-xam lañu kon ñun xalaat nañu gis nañu ne problème bi mooy ñaar yooyu muy liste national bu Yewwi ak muy liste totale nationale et majoritaire bu Benno Bokk Yaakaar yooyu yëpp dañu leen waroon a dax. d'accord waaw mais loolu nag. wax rek lañ ci mën. waaw euh, bu dee nag waa nguur gi nguur gi ñoom ñooy ñoom ñooy sifflé ñooy yor ah, ñooy arbitre ñooy footballeur. mais ñoom lu leen neex def. waaw léegi euh, taxawaayu euh, yeewi gis nañu def nañ fi ñoom mobilisation def nañ fi concert de casserole yow nan ko ko jàngatee. waaw mais loolu combat politique la bokk na ci li nga xam ne wax dëgg bu ma sañoon foofu la ñu waroon tàmbali ndax maanaam ñi ci faatu mënoon na ñàkk. tey. est-ce que responsabilité état bi. mais responsabilité état bi ci lu wër mais nag responsabilité opposition bi organiser marché yi tamit mënuñ koo bañ a génn donc responsabilité partagée la mais kii ci njëkk ci responsabilité mooy état. waaw mais opposition ñoom dañoo jàpp ne dafa am leen constitution bi may. waaw mais loolu ci lu wóor loolu loolu c'est un droit marche moom c'est un droit mais am na ay am na ay xeetu. Euh, wax am na ay xeetu engagement yoo xam ne boo ci duggee rek yow yaa ngi ñaax nit ñi ci fitna yaa ngi yaa ngi yóbbu nit ñi ci fitna foog naa ne tey euh, Sénégal soxlawul fitna bari na ay jafe-jafe yoo xam ne tey ci la ñu war a gaaw a jublu ne ñu dem ci élec moo tax ñun dañu nanguwul élection ñu koy dax parce que député yoo xam ne ci ci ci ci ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yooyu dina ne naa la ba ëppul juróom ñii di dem ci ci ci ci fi ñu war a dem pour pour xalaat li nga xam ne mooy loi mais loolu kasara la loolu musiba la kon loolu war nañu gaaw a changer yóbbu fa borom bopp yi nga xam ne bu ñu demee dinañu indi coppite ci li nga xam ne moom la réew bi di doxee. loolu mooy suñu taxawaay ñun. d'accord jërëjëf euh, Bruno Derneville euh, yow nga bokk ci coalition bunt bi yéen a ngi déglu rajo euh, Rewmi FM tey seen coalition bi tey ndax ñu bari dañu gis ne bennoo ak yi dañoo bëgg ñoom ñaar dañoo bëgg a def élection yi ci seen biir mel ni yeneen coalition yi ñoom euh, bokkuñu si ndax yéen tey jàpp ngeen ne coalition bu bi am na taxawaay boo xam ne mën naa am député yu bari ci liste nationale gagné ay département waaw kooku moom am nañ ci yaakaar bu baax euh, ci fan yi rek laa dégg euh, ñaari nit ñoo xam ne du ci benn place bi lañ ko waxee ku ci ne ci place am la ko waxee te xamantewuñu wuñu waaye li ñuy wax dafa mel ni ñoom ñëpp benn benn baat bi la ñu wax nee nañu ñoom li ñu seetlu ci élection législative yi am na ci ñaari coalition yoo xam ne de te ñun suñu coalition bunt bi bokk na ci dañ leen jàppee ni ci coalition wu intellectuel yi ñu ne nag ñoom xam nañu ne intellectuel yi ñoo mën a indi loi yu baax ci réew mi kon foog naa ne boo commencé dégg lu mel noonu te itam de débat dina am. parce que ala kulli ali donte sax tey journaliste yi yëpp sa mbokk yi ñoom euh, li leen gën a ñor mooy dem ci waa Bennoo ak dem ci waa Yewwi parce que foofu la coow li bare foofu la wax ji bare foofu la ñuy nit ñi di jëndee ay journaux. foofu la buzz bi nekk donc foofu la ñuy dem. mais ay kàngam fa nekk aussi. mais mais mais ay lan nga ne. ay kàngam ñoo nekk waaw bu après après dinañ ci dellu si waat bu la neexee euh, loolu bañu ma ko mais euh, xam nga man àndoon naa ak Ousmane Sonko ci Sonko président maa jiite woon coalition Sonko président mhm. balaa maa yore woon les cinquante membre de de la coalition man maa jiite woon leader yooyu. waaw donc ñoom ñoom Guy Marius Sagna ñooñ ñëpp ci taabal bi lañ doon toog man maa leen doon jiite. kon loolu foog naa ne euh, kenn mënu koo kenn mënu koo bañ te dañ ma ko war a nangul. voilà donc xam naa leen bu baax itam ñoom itam xam nañ ma bu baax te xam nañu ne bu dee xalaat rek la bu dee pas-pas la bu dee bëgg sa réew la. foog naa ne pour gis ñu ñu ñu ñu ci gën a euh, euh, yeeyoo de dina jafe euh, xañ na nag am na ñoo xam ne ñoo ñu ëpp wax wala ñoo ñu ëpp bay de kooku moom bañuñu ko. mais mënoo leen a mënoo leen a bañal aussi seen seen dayo politique. non non loolu laa doon wax ma ne ma ne dayo politique bi moom bañaluñ leen ko mais nag ñun itam buñ ñu bañal li nga xam ne mooy suñu xam-xam ak suñu pas-pas donc loolu suñu xam-xam ak suñu pas-pas boobu nag ñu ko jagleel nit. ñun réew mi lañ koy jagleel. ñun looloo ñu ñar jagleel ko réew mi du nit. moo tax ñun pour pour manipuler ñu c'est très difficile ñun pour yóbbu ñu di ñu dugal ci ay guuta c'est très difficile donc waxuma nag ne set impossible. Mm-hmm. waaye jafe na kon euh, ñun pour wax la ne tey am nañu yaakaar bu baax population yi gëstu ñii nga coalition bi nga xam ne moom la ñuy woowee bunt bi ndax nag. ay borom xam-xam ñoo ci ne xam nañu ni ñuy prioriser euh, euh, euh, loi yi nee naa la ñun ay gëstukat lañu nee naa la man dama dem ba ci assemblée nationale pour du ma député est-ce que xam nga ne tey assemblée nationale am na fu am na foo xam ne boo fa duggee dafa mel ni pàkk lambay hmm. pàkk lambay wala moo gën a garaaw si sax pàkk lambay ordinateur la ñu jël di ko jóor di ko jóor di ko jóor poussière bi tegu fa ba kenn xamul lu muy niru waaw foofu loolu assemblée na a ah, loolu est-ce que est-ce que est-ce xalaat ngeen ne ay liggéeykat ñoo fa nekk. man de bu ma nekkoon ci député yi même bu ma nekkuloon président de l'Assemblée national loolu waruma ko duma ko nangu ñu koy bàyyi ci couloir yi parce que loolu li muy wane mooy ñii. xaj na du liggéey moo leen moo leen fa indi ñoom seen poche moo leen fa yow nit ki ki ku bëgg liggéey bu baax boo duggee ci biirom di nga xam ne kii liggéeykat la parce que lépp fi mu war a tegu lay tegu waaye doo fa fekk ay poubelle d'accord jërëjëf euh, Bruno D'erneville waxtu wi jeex na maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax lan nga bëgg tàggoo lu ma la laajul rek. waaw euh, li may tàggoo rek mooy di euh, balu ak sama sama mbokk yi di leen wax ne Sénégal. Euh, tey mu ngi ci yoon wu bees mu ngi ci euh, diggante te diggante woowu euh, xaj na di jàpp ne publicité la waaye diggante woowu day laaj ñu jaar ci bunt bi jaar ci bunt bi nag mooy xool li nga xam ne mooy li gën ci senegal te loolu mu doon loo xam ne kenn mënu ko nattable loolu nag li gën ci senegal ñi koy indi mooy ay nit ñoo xam ne xam liñ leen xamal mooy liggéey liñ leen xamal mooy jub liñ leen xamal mooy xam-xam liñ leen xamal mooy bëgg seen réew loolu nag am naa yaakaar ne buñ ko gëstoo te war nañ ko mën a gëstu ci débat yi nga xam ne moom la ñuy ñëw def nii buñ ko gëstoo bu baax war nañu mun a tànn li baax ci ñoom may wax nag ne tey intérêt wu Sénégal mooy votel opposition bi. opposition bi am doole ngir ñu mun a soppi loi yi ci biñ ko war a soppee parce que nag loi yoo xam ne majorité euh, majorité électorale boo xam ne da koy jox assemblée nationale koo xam ne xas na ba nekk président kooku assemblée boobu ragal naa ne du mun a soppi loi yi parce que loi yooyu il faut mu ànd ak président moo tax fi ñu toll nii. mu doon loo xam ne am na importance lool ñu dooleel opposition bi pour que loi yi ñu mun koo soppi ci bi ñu ko war a soppee ba nga xam ne bépp président bu ñëwati rek dinañ tënku ci loi yooyu ñu mun a liggéey suñu réew. jërëjëf euh, Bruno D'erneville euh, yow euh, nga bokk ci coalition bunt bi ñu lay jaajëful baax a baax yow la ñu invité woon tey ci émission pencum réew mi ci rajo Réew mi FM ñu lay sant bu baax a baax di la gërëm di rafetlu aussi sa disponibilité mbokk yéen a ngi àndoon ak Abdou Khadre Seck ci kàddu gi Mamadou Diawa Diallo ci wàllu machine bi ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay